fii fii mooy fi nga xamante ne fi la ñu denc martyr yi nga xamante ne ñoo daanu woon ci xare Uhud ñu toll ci juróom-ñaar fukki nit comme niñ leen ko waxee bokk na ca Hamza ibn Abdul Muttalib di bàyyi taxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bokk na ca Mus'ab ibn Umayr nga xam ne moom lañ leen wax ne mooy premier ambassadeur yonent bi ci l'islam ak ki nga xamante ne mooy Abdullah ibn Jahsh doon doomu bàjjenu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñett ñooñu muy Hamza ak Mus'ab ak ki nga xam ne mooy Abdullah ibn Jahsh wax nañ ni fee ngeen gis ne fi ngeen di njëkk a jot ne foofu ñett ñooñu foofu lañ leen denc dañ leen a boole benn armeel mbokk yi dagan na jullit ñi buñ leen di rob dagan na ñu boole lu ëpp kenn ci benn bàmmeel bu dee aajo laaj na ko fii nag aajo daf ko laajoon ndax lan limu jullit ñi dañoo bari soixante-dix suuf si ay xeer la buñ bëggoon a gasal kenn ku nekk bàmmeelam dañuy gën a sonn te sonn nañ ci xeex bi moo tax yonente alayhi salaatu ngir wayefalal julit ñi ñu doon boole ñaar wala ñett ci ben armel waye mbokk yi yonente jàngale fofu lu reuy buñ indé ñaari martir wala ñett ngir boole len ci ben armel kan moy fete penk yonente da doon laaj kan mo raw ci ñoom ci alquran buñ ne ko ki mo raw koka lay tek mu fete penku kacha top top topp ca ka top topp ca Hamza ak Abdullah ibn Jahsh ak Mus'ab ibn Umayr ñoom lañ boole ben armel loolu mbokki jullit yi lu muy firi mooy waa alquran ñoom la yàlla jiital fii ci àdduna ndax yonent nee na ki dàq jàng alquran mooy nekk yilimaan ñoom la yàlla jiital ci biir bàmmeel ndax yonent ñi raw ci alquran ñoom la doon jiital ñu féete penku ña ca topp topp ca waa alquran ñooy raw ëllëg yowmal qiyaama ca aljanna ñooy ëpp daraja ndax yonent yàlla bi moo ki jàng alquran ëllëg yowmal qiyaama dañ naan ko jàngal nga rafetal njàng mi comme nanga ko doon rafetale ca àdduna sa daraja mooy nekk laaya ji nga mujj a jàng ci alquran maanaam laaya joo jàng rek yàlla jox la benn daraja aljanna nga jàngaat beneen daraja di gën a yéeg loo gën a bari looy jàng alquran sa daraja di gën a kawe ca ca aljanna yàlla ñu yàlla boole ci waa alquran kon mbokk yi mboolem martir yi ñu ngi fii tëdd yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw na ziyaare leen ginnaaw bi mu leen robee huit après mu ñëw ziyaare leen nga xamne quelques mois la ci tek daal di génn aduna motax ki andon ak mom daan ne yonent bi dafa mel da doon tàggu ñi dund ak ñi faatu kérok bimu ñëwé mu nuyu leen ñaanal leen comme ni nga xamne dañ ko def légui gannaaw gam khutba manam wax ak saaba yi nga xamne ñom la andalon ne leen ana shahidun li haulaai yowma alqiyaama mu ne ñi man may nek seen ëlëk yawm al qiyamah ci kanamu yàlla yonent dana seede ni ñom day kolere ga doxoon digganteem ak mom ak kolere ga sen seen ak sen borom matal nañ ko joxe nañ sen bakkan joxe nañ sen alal ngir gu yalla fete kaw kon ñun lolo tax ñu ñew tay ngir ziaré len comme ni len yonnata ali sallatu wasallam ziaré mbokk yi yonente bi ali sallatu wasallam bu dan ziaré armel ziaré ñetti mir lay lambo, bi ci njëkk moy da len di nuyu moy ñaanal len jam, mucc ñaarel bi moy da len di ñaanal yermande ak jam, ak jam ñettel bi day fàttaliku de mbokk yi nii la ñuy ziyaare armeel moo xam armeel yii la moo xam baqiya la moo xam yeneen armeel yu mën a doon ci armel yi jullit ñi nii lañ leen di ziyaare yonente alayhi salaatu wasalaam nee na tere woon naa leen ngeen ziyaare armeel léegi tere googa nasaxal naa ko dee leen ziyaare armeel ndax day fàttali dee ci beneen riwaaya mu ne day fàttali àllaaxira mbokk yi bu ñëwee ñii kuy bëgg yonente alayhi salaatu wasalaam ñoo la ko gën bëgg kuy joxe sa bopp ak sa alal ngir yonent alayhi salaatu wasalaam ab wooteem jàll ngir kàddug yàlla féete kaw ñii ñoo la ko dàq kuy xir ci jaamu yàlla ñii ñoo la ci gën a xir képp kuy baax ñii ñoo la gën a baax ci xeet wi waaye ànd ak loolu bis ñëw na yàlla jël seen ruuñu wuy ji seen boroom kon li leen li leen fi jëlee ndax danañu danañu fi bàyyi ñun kon bis dana ñëw ñu faatu comme que ñooñu gën te faatu nañ kon ñun bis dana ñëw ñu faatu kon bo len ziaré war nga xalat ne ah bis dana ñëw ma ma ma fekki leen de waaye loolu boo ko lum la wara jural daf la wara jural nga xër ci top yàlla ndax moy tax mucc mbok yi ñi texe yàlla sédé senuk texe li len taxa a texe du nek gu ñu nekk ay arab du dëkk gu ñu dëkk Madina wala Makka du seenu der dafa wéx wala dafa ñuul du lak wi lañ doon lak waye li tax ñu dugg al janna mooy liñ doon jëf fii ci àdduna dañoo gëmoon yàlla akub yonentam doon topp yàlla akub yonentam doon xeex joxe seen bakkan ngir diine yàlla ji ñu jël seen bakkan ñu dem aljanna kon li leen tax a texe ñoom ñoo ko jëf fii ci àdduna seen mbokk ya joxe woon màkka ñu bokk benn deret nekk seen mbokk ñañ rey ca wet gee ñoom ñëpp dañuy dem sawar lu tax ñoo bokk lépp waaye ñii dañoo gëm yàlla ñee dañoo weddi yàlla kon mbokk yi liy taxa texe mooy gëm yàlla liy tax a texe mooy topp yàlla akub yonentam kon nanu xër ci topp yallaa ko bi yonentam ngir ñu mën a texeñ